président d'honneur doole bi mouvement nawetaan am ci footballu Sénégal ñi ko xamul ak ñi xamul ligue ligue football yi ligue yi nekk ci euh, euh, euh, région yi ni ñu leen installé waaw ñi ko xamul ñoo fi nekk ba léegi naan nous soutenons Madi Touré Augustin am na quatrième mandat léegi xam nga moo ci des élection bi à moins que gouvernement bi dóor vetoom am yu mu def ne ko da ngay dem ci nii ak ci ne te dem boobu sax forcé dong lay ne mais buñ ko naree teg ci wàllum vote kese. mais force daa war a dem. te nag boo bëggee dégg-dëgg. force dafa war a dem. ligue professionnelle bi teg nañ ko ci consensus nee nañ waxtaan ba juboo fédération bi nee nañ waxtaan ba juboo lépp ñu lal ko ci affaire bi. Sénégal foog ñu bàyyi waxtaan bu juboo yéen moomoo leen football bi. c'est ça quoi. le football ne vous appartient pas. les instances ne vous appartiennent pas moo moo leen football bi sénégalais yi nga xam ne ñoo moom football bi comme ni ñu moomee palais ba alaaji mhm. nit ñi bu ñu leen yàpp te bu ñu leen fontoo Augustin Senghor képp koy def consensus autour de sa personne nga ko war a wax mooy président bañ leen naam ñu ne ko takkal say bagages nga dem gore gee mu nekk rek lu jege ñaar fukki atu yàlla sax heure joxe équipe ba dafa jot mhm. waxoon duma la ak suñu fédération bi mhm. yéen mënoo leen fee am lu tolloo trois mandats. ah alaaji def vingt ans ci football bi. Hmm. ñu ne déet ni euh, euh, euh, ngeen def lu tollook ñeenti kan. ñeenti kan. ñenn ñi ne juróomi kan. mondial nag. dara defoo leen ko fi. gagné wuñu alaaji gis nga sénégalais yi bëggatuñoo dem final. alaaji ñun qualifié coupe du monde nekkatul info ci ñu non non non non non. keroog ba ñuy gagné ji Namibie di xaar match Égypte ba jeex. Hmm. ñuy jubilé naan Sénégal pour la première fois ñuy dem coupe du monde bokkul sax ak suñ coupe du monde bii passé. suñ coupe du monde bii passé. gars yi maanaam nekkul dañ ko qualifié facilement. non et puis nekkul woon info. waaw waaw Sénégal qualifié na coupe du monde. Sénégal kay dañ naan bu qualifié coupe du monde est que stade bi ñu yemoon quart de finale. Hmm. fa. Nigéria yem fa. Cameroun yem fa. est que duñ ko yéen ngeen ñëw yóbbu ñu ko du monde nekkul info ngeen toogal ñu premier tour. Colombie gagné leen. Colombie ngeen niil ak Japon. Colombie. dóor Pologne match d'ouverture. commencé xaste. naan di ngeen xam ne ngeen ñun ay gaafu ñoo ngi nekk yéen a yor gaaf gu rëy gi. <laughs> commencé gaaruwaale ñu fi nekkoon 2002 alaaji. way ñun suñu président bi gayeen ay gaaful Macky lii Macky lee Augustin lii Augustin le fekk yéen gën a ay gaaf kaay leen ñu ay gaaf premier tour ngeen toog ah, nga seen bopp ñu dem coupe ñu dem final coupe d'Afrique alaaji li day catu boppam li bañ a catu boppam mm-hmm. ñu dem coupe d'Afrique final mm-hmm. ñun suñu final bi ñu football fële ca Mali mm-hmm. ku dul woon ak ñun sax boo demoon ak Cameroun ñu xeex la dëkk baak ñëpp a ñu contrôle atam te góorgóorlu nañ dem ba série penalty waaw ba tiro bi bi bii nag moom bii ki leen dóor match de poule di Algérie da leen a dajewaat ak yéen final dóoraat leen. war leen carrément ne leen maa leen man patal la ci minute yu njëkk yi. waaw la dóor dóoraat la. waaw defoo leen fi dara loo xamante ne nii nit ñi defuñ ko fii ci football. waaw waaw. suñu club yaa ngi nii Ligue des champions gis nañ fi jara jaraafu dem si yàlla Omar Seck. waaw Ligue des champions. Mm-hmm. yéen lan ngeen def lu fi nit ñi deful. wax leen ñu ne ñu ñun def nañu résultat bii. Mm-hmm. au contraire. vous avez détruit euh, euh, notre football là. football mënoo fexe yow alaaji ba am stade bu ñu homologué. stade boo xam ne nit ñi d' accord nañ ne stade bi ñëpp nañu football foofu la wax ji nekk pour ñu am stade il a fallu état bi jóg mobiliser ay moyens ñu ne dinañ tabax benn stade bu bees stade boobu ñuy defar jam ñaajo alaaji bu ñu ko defee mu fekk fi ñoom Augustin stade boobu moo yées amitié ak Demba Diop dañu wax ne dëgg problème bu gestion la problème bu gestion la amitié bi amitié bi mënoon naa bañ a mel état bi mu nekk ni waaye Demba Diop kañ la daan mënoon na faa bañ a yegg buñ ko tawoon du fa yegg mais Demba Diop nag 32 milliards yi ngeen jël ne moom ngeen jël def ko ci. arène nationale bi moom xanaa yéen. mais loolu tabaxul stade multisport. non démb Diop sax am nañu am nañu waawu gouvernement bi pour tabax ko mu nekk stade fédéral fu ñu ci toll duñu duñu informer nit ñi football nga jëpp ko bëgg koo jàpp def ko comme sa sa keesu boutique yow di doxal ni mu la neexee. ma ni ñoom ku ne da ngaa am métier avocat bi avocat la suñu yoon nekkul ci métier mais dafa am loo xam ne ñun ñëpp ko bokk. solal ngeen nit ñi homme d'affaires bi homme d'affaires la ci métier am suñu yoon nekkul ci moom. mais football bi ñëpp bokk. solal ngeen nit ñi ngeen ko jox nit ñi de. wallaay ba pare yéen yéen mooyee bi ngeen ko yóbbu. ngeen ñu ko delloo te taxul ngeen gañe. ngeen ne ko fa ñu ko ne yekk bu ñorul kon te te te jublu ci yeneen discipline yi alaaji. bi aussi faaw mu déglu Sénégalais. faaw mu déglu Sénégalais bu dee. ah oui laaj mag sax. laaj ma la moo tax waaw. alaaji Matar ba moom mooy tutelle bi. ah oui Matar ba mooy ministre des sports. Hmm. dégg nga benn instant bi nga xam ne ndem si yàlla Youssou Ndiaye Ablaye Wade tegoon na ko fi. Mhm. bi football bi amee problème jamono ñoom Sow Ndong. Mhm. ak ñoom El Hadj Malick Sy mhm. ba ñu teewal seen comité de normalisation boobu. ba ñoom Augustin ba ba ñuy ñëw. ak élection ñoom Malick Gakou beeg lépp fii la ñu fekk. dégg nga li ma la wax. tout est politisé. tout avec un grand T. Mhm. Augustin li leer ba leer bu bokkoon ci opposition à cent pour cent di incarner une opposition radicale pour le départ de Macky Sall wallahi du am quatrième mandat. jamais. dinañ def lobby ba mu jóge fi mais yéen da ngeen a bëgg nit ñi gagné kay. te aajuwul lobby mais doo leen def waaye yow ma ne am foo xam ne bu fa tollee sa da koo laaj. aajuwul lobby. et puis lii sax aajuwul lobby. nañu respecté li nekk ci texte yi. balaa may dee ñu naan. non non non même boo indee ay texte alaaji dama ne la mouvement associatif bi. ni ñu ko ni ni mu ni ko ni mu ni ni nekke nekkee ni ñu ñun suñu texte yi ni ko bindee ci wàllum football ak organisation. entre la ligue là. le football amateur ak ak le ak le le le le le le le fédération bi ngànk leen. ku fi nekk te état bi jëlul décision jël ay responsabilités. bu la neexee da nga fiy toog lu ëpp trente ans. xanaa déggoo ma. wallaahi. da fi toog lu ëpp cinquant ans. te doo fi jógee. doo fi jógee fi jógee. mais Macky mii xanaa bëggul gagné dañ naan on ne change pas une équipe qui gagne mais équipe yi gagné wul. waaw gagné wul leen dara. benn ñaar gis ñoom est-ce que mos nañoo gagné dara. lenn lenn est-ce que mos nañu ko. lenn ñoom bi ñuy ñëw boobu fekk na coupe boobu ñu ko fii dindi. yéen gagné leen dara petite catégorie bi petite catégorie bi moom moo tane. gis nga ay ñoom Sayer ay ñoom Mbaye Diouf ja. nit ñi a rus. benn Babacar Ndiaye président Tëngéej FC chaque jour ma tudd la fi Mamadou Gueye AS Pikine chaque jour ma tudd la fi. Hmm. Euh, euh, chaque jour ñu tudd fi ñoo ñu nga xam ne dañoo ñëw révolutionner le football local la mais bu ñu bokkee ci bu ñu bokkee ci dil bi ñu dénoncé bokk dañ ci nag. waaw ah. dañ cee bokk. moo tax ñu leen di tudd nii. waaye yow. bañ leen bokk ci dil bi. Ah, ñaaw. ah Madi Touré. erreur bi mu njëkk a def alaaji hmm. mooy réunion bi njëkk a gars yi toogee naan dañuy waxtaan ci benn programme boo xamante ne nii benn gouvernance ah, euh, boo xam ne day am consensus ñun ñëpp ñu juboo ci warul woon sax toog foofu ban consensus ba gars yi d'accord ca après mu rocceeku maintenir sa candidature lan mooy ay ay ay ay gouvernance hmm? boo xam ne ñun ñëpp dañ ciy d'accord suñu suñu suñu faible bi alaaji ñaata ñaata milliards lay lekk par an baaxul baaxul ñaata milliards lay lekk. mooy discipline bi ñu gën a teg ci conditions yi gën a baax. te moo gën a moo gën a moo gën a yées waaye yow. bi sa soccer football gi jaa ngi nii football. football la euh, ñaata yoon lañ fi gagné coupe d'Afrique. xam nga kañ laa rus. jaloore ñu def ci coupe du monde na. mais bu ñu ñëwee alaaji aéroport sax du ñu am ku leen jëli. bii passé sax moo tane. boo déggee ne recevoir nañ leen palais ba rek. élection moo jib ñu bañ gaa yi mer. xoolal bi Sadio Mané wa bi Sadio Mané waxee. ah ni may nit ñi jooy stade yi ñu ne ko Liverpool melul ni Sénégal benn club bu ay nit moom kese privé statam gouvernement bu Sénégal mun tam stade bu mel ni bu Liverpool. alaaji Chelsea ni sérieux yamul. alaaji amul ci doxalin bi. alaaji ah? xam nga gars yi ni ñuy gis équipe bu tubaab yi. il ak nit ñi ni ñuy bëree ci stade mais bu la waxee équipe yi ñaata nit ñoom Chelsea quartier la. Hmm? wutal ko fa dëkk. déggoo ma de quartier la. alaaji ab hmm? quartier. dëgg la ñooñu ñooy gagné ay Ligue des champions. wallaay wallaay. quartier la. yow nga yor ay équipe yu mel ni ay jaraaf. xoolal sa ndark. Hmm. ñoo xam ni ñooñu ay pionniers wu footballu réew mi actuellement. ña nga ca ndaare ndaare division ya. ah parce que mënuñu fexe waat ba yëg. stade amuñu stade amuñu fuñ compétiré amatuñ ku leen may loxo amuñ subvention amuñ dara. stade yéen ngeen jël football bi ngànk ko nekk juróom-benn nit nekk ci kaw bañ na doo leen wàcc. stade ngeen teg ko yàq football ba pare. balaa may dégg da ngay wax ba pare de nit woo la ci suuna la booy booy fiis ma ni waaye xam nga diw moom ñun dina yëgoon ne yow diw sa mbokk la sax et après. mbokk gi deret bi. fii la man ak yow. après mais intérêt général national bi du man ak yow ñëpp la. ñëpp la. Hmm. ñëpp xam ne dëgg. Ah. waaye mais mais mbër yow xanaa yëgoon ne diw moom mooy denc sa sa sœur nangam. après xanaa xamoo ne doomu diw. yow ay nijaayam ngeen. et léegi nag. bokk nga si seen kër la yam. waaye yow mais li ñëpp bokk ñëpp ko bokk mooy lan. waaw ah, li ñëpp bokk ñëpp ko bokk. Eh. xew ci fédération sénégalaise bu football bi amul fenn. dañ ko bàyyi de. wallaay daañu bàyyi daañu bàyyi fédération bi. askan wi nag ñooy askan wi ñooy taxaw pression. dafa ah, gaa yi fa ne. waaw. gaa fa ne yëpp dañoo war a wax. te képp koo xam ne noppi nga. ay Sow président fédération Cheikh Tidiane Seck ancien gardien président Jaraaf. Mhm. nekk vice président fédération. Euh, euh, euh, ñii nit ñi xam ni ñëpp ñun ñenn ñi jàppee leen ne ay référence lañ ay nangam sax wax leen. Augustin doit partir. Ah. Matar Ba waxal Augustin doit partir. parce que ñooñu nga tudd noonu dañu leen a naw. parce que xam nañu ni ajuñu ajuñu seen dara ci eh, ci ci football bi. Cheikh Seck Cheikh Seck dafa politique Abdoulaye Sow ministre. non Cheikh Seck dafa politique. Cheikh Seck politique deful dara. mu ngi yor ay liggéey boppam di liggéey mu ngi ci liggéey heure wax dëgg alaaji bu jotee nañ leen interpellé. waaw Cheikh Seck ni ma ni ma la xamee nii laa ko xamee. waaw Abdoulaye Sow nii laa ko xamee. Mbaye Diouf jot nii laa ko xamee. waaw eh, eh, kii Sayer Seck nii laa ko xamee dañuy wax téléphone Babacar Ndiaye moom waxaale mu ay mbiram sama frère la maa di Touré mii ñuy wax sax laa ci miinu benn yoon laa a wax ak moom téléphone. mais changement la ñu bëgg. waaw ci football bi. naa keneen ku ni bu ngeen fexee ba jox Malick Touré suñu football bi di ngeen ko rëccu mais ñun rëccu nañ bu yàgg ñun football. ki mu nekk waaw na ko mais ki mu nekk ci loxoom nañ ko rëccu. xam xam nga boo joxee ni ki football di jooy waaye léegi ki ko yor ñun jooy nañu. léegi ki ko yor mën nañoo dëkk ci ci jooy léegi dañu bëgg a dañu bëgg a soppi aw jooyin sax nag. ci euh, euh, dañ cee yàgg ñu bëgg sax ñamu yaay we ay ay ay yaa d'accord ay ay yaa c'est ça quoi maam jaara faam yaa ni ci dëkk di gis naa sa publication bi hmm. gis gis ñoo la ko ñaan waaye ñoo la ko ñoo la ko ñaan <coughs> et puis am na yoo xam ne sax ah, naan ay retiré yu na am ay retiré yooyu yëpp amu fi ay retiré yooyu am ay retiré yooyu ba am def man yooyu daa non complot yooyu non anduma ci daal soo ne daal nekkal nekkal candidat. loolu hmm. loolu jikko politicien yi la. complot yooyu mooy la politicien yi ñoo naan candidat la candidat la ba dernier bi naan non c'est que après concertation Samba Kodo fekk dañ leen woo ci suuf. waaw ah, lépp ci ay affaire tappale. Babacar Ndiaye wutu nangu loolu. xamee wuñu leen nag ay affaire jikko politicien yooyu bañ ko. wutu nangu loolu Babacar Ndiaye waruta nangu loolu. waay yow waaw wutu nangu loolu. Ah. mooy mooy mais mooy comme candidature Sayar Seck ak Mbaye Diouf Dia ci fédération bi. waaw waaw dem ba ci biir nga ne sama sama candidature wiré naa ko ci Augustin. dañoo yëpp nit ñi baare yógoo yooyu dañoo yëpp nit ñi te ba ñuy doog a commencé ñoom ñëpp alaaji ku ci nekk yaa ngay woo journaliste boo xam naan mbër jàpp leen ci moom Augustin doit partir mm-hmm. mais ñu laa gis tey ñu toog ak Augustin naan ay consensus mm-hmm. waxtaan bu juboo maître Abba Talib Gueye li mu wax loolu mooy dëgg dëgg de waxtaan bu juboo seen consensus bi affaire u naa fekk la c'est de l'hypocrisie <laughs> waaye mais lii jàmm la yow gañewoo doo dem mm, dëgg yàlla eh, ah desu tey bi. Mhm. di ngeen di ngeen dem de. Macky Sall muy Macky Sall eh, waxal ci lii loolu fi ne lu gën a garaaw corona bi fop nit ñi la ñu dee.